Salam alaikum. je nuyu Moustapha di santé ak culture man suis euh, vice président association l'association MIMA mission itinérante médicale d'Afrique man aussi président de UPAC union pour la promotion des arts et cultures. donc je euh, suis ci

mais xam naa ne rek bu buñ ko dañ koy jéem a tënk parce que mënuñoo wax lépp mais li ma ciy wax rek mooy nit ki dafa am li nga xam ne noonu lañ koy muulee ak société ni nga xam ni noonu lañ koy muulee donc ñoom ñaar dañoo war a am benn corrélation benn complicité ba nga xam ni danañu mën a ànd parce que da ngay nekk ci benn société donc dafa war a am noo war a mel noo war a mel mooy yow ci sa bopp da ngay bàyyi xel bayi xel say nawle donc loolu boko baye xel deja dana la guidé ci sa comportement bi nga wara a euh ben bi parce que da ngay gis yenn say sax nit ñi def euh, li ci mbedd def li ci mbedd mais mbedd moomu ngay tëf li yaag ñëpp ko bok yaag ñëpp ko tay te ji euh ak jangoro ju bon ji nga xamni ni bu bon bi nga xamni ni ñëw na muy coronavirus lolu rek deja war na la guidé ba nga am benen comportement bi nga xamni doko doo ko def koor ngi ñëw dañ koy faral di aussi ñi di fu di l'islam waxul loolu l'islam diine bu set la waxul aussi da ngay sur le plan nous nga xam dañuy dawal am na yenn comportement damay jàppee ni euh, ñàkk xam manque de sensibilisation wala indiscipline indiscipline organisée parce que mënumaa comprendre ngay dawal sa ko angle déjà loolu parce que te ak dafa sew euh yoyu comportement en fait nit ki warna koy baye xel parce que dañ leen koy jangal bala ñu leen di jox euh, permis donc yoyu war nañ koy mën a ba nga xamni société bi euh ñu kenn ku ci nek da nga da nga ci bay sa war di ngay gis sax nit ku garé otoom ci ci ci ci mbedd baye ko fa ay 5 ans non tu gênes la circulation et tu mets les populations en danger en fait parce que auto bo garé amna place espace bu muy jël euh, nit ki nga xamné ne fa waroon jaar ci trottoir dootul jaar ci trottoir te kaw teli ba lay jaar té boba yow ya ko mettre en danger muy benen benen bi aussi moy li nga xamné mo gëna gën a fréquent gën maa metti euh, l'accoutrement l'apparaître li nga xamné ne lañuy la gis ci suñu société je peux pas comprendre ñuy copier ci li xam ne dañ koy gis ci télé muy lu bon ñu bëgg ko jël def ko parce que ñun dañu am suñu culture ni ñuy solo baaxul ñu ci goor ak ci jigen nak bu ci jigen ñi rek de waaw seen yooyu ngeen di sol jigen ñi mi nga xamni sa cër yi fay genn vraiment lolu parce que mën nga dajé ku nekk ci mbedd mi kilifa diina yaangi fi kilifa aada yaangi fi te yow ci sa bop sax kilifa nga war nga mëna euh, ñu respecté la ci la nga sol nak lañ lay respecté parce que niñ la rek lañ lay lañ lay ha ah.

donc la jeunesse d'aujourd'hui war nañoo mën a xam loolu ba nga xam ni bu ñu naan ngi dem seeti préfet wala gouverneur wala président de la république ñu xam naka la solo. du dama koy sol parce que nit ka la non institution bi ngay wormal parce que institution mooy bànqaasu réew réew mi nag ngay ngay wormal donc yoy war nañ koy xel Euh, ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne bu ñu ko doon tudd fii daanaka duñ ci duñ fi duñ fi jóge duñ fi jógee nit sax da ngay gis mu mu am tolof tolof ci mbedd mi euh, nga romb ko nga romb ko alors que waroon nga ko mën a jàppale wala nga dimbale ko nga taxawu ko nga taxaw ko donc yooyu ay comportement la yi nga xam ni tey jii société bi xaw naa jaxasoo mais. li ngeen di def parce que day conscientiser de sensibiliser pour que la euh, population bi vraiment ñu am belle façon comportement ci biir société bi waaw parce que euh, société est doomu aadama tu te conformes à la société tu es en phase avec la société nga société est société bi dem waaw est dans gannaaw société bi mooy un comportement yi nga xam ne ça doit être banni baaxul société bi da koy bañ mooy yow won nga gannaaw société bi waaw parce que ñun dañu am suñu culture dafa am suñu dañu am suñu cosaan ak suñu aada yi nga xam ne war nañ ko mën a sàmm ci lañ ñuy ràññee ñun ci lañ ñuy ràññee ci lañ ñuy xam waaw waaw donc euh, yooyu mi ngi ci ak ak yeneen ak yeneen waaw bon buñ fi buñ fi naree ta ta wasaare lépp sax parce que euh, par exemple dama wax léegi ni da nga gis nit ci par exemple ci mbedd mi mu am tolof tolof nga war koo taxawu romb ko romb ko Euh, ñun fi mu ne nii damay bañ a publicité xaw ma fu ngeen koy dawal moo am publicité mais euh, te te aw ma koppar bu ma leen fayee euh, fan yi danañ def benn sens bi benn formation bi nga xam ni dafay jëmale wax nit ñi naka la ñuy taxawoo doomu aadama bi nga xam ne am na tolof tolof ci ci fu mu mënti doon foo dajeek moom nit mën ngaa dajeek moom ci mbedd mi mu am benn ñaanu ma ko yàlla accident waaja am fracture wala lu mu mënti doon sapeur pompier yi bala ñëw ñëw yow mi nga xam ne fee teewee nga ko yaa fu njëkk a teew war na am taxawaay boo ko war a taxaw waaw donc yooyu ci fan yi di ñëw incha allah danañ ci wow nit ñi pour ñu former leen ci loolu ak sapeur pompier yi du ñu ñoo koy former nag sapeur pompier yi nga xam ni euh, ñoom seen liggéey loolu la ñoom ñooy former loolu ñooy former nit ñi ci loolu te loolu dafa baax ba nga xam ni dana mën a taxawu société bi ci yenn côté yi surtout sur le sens de la sécurité xam nga euh, sensibiliser société bi bu baax a baax waaw. Euh, ñu gën a jox cër aussi jigéen jigéen waaw parce que lépp loo gis ci àdduna àdduna bu baaxee jigéen la waaw bu baaxee jigéen la donc nañu gën a jox euh, jigéen cër ak ndaw yi parce que ndaw mooy ëllëgu ëllëgu réew ëllëgu réew vraiment ma leen ñaaxaat pour que gone yi ñu gën a am de comportements même dans le langage da dégg tey Euh, gone yi seen langage dafa xaw a doy waar ah da ngay dégg ñu wax naan la mais per quoi xam nga quoi wala duma ko def ngeen baal ma la ca top ah am ah tër am xam nga xam ngeen li may wax dama koy bañ a wax parce que ci camera laa nekk yaraw ñu ma noonu yaraw ñu leen noonu mais ñu ñu seetaat suñu langage ñun waaw waaw waaw yar ak ñàkk parce que yar aussi ci ci kër la ci kër ga ngay jëkke waaw naka ngay waxee ak say wayjur naka ngay wax ak say mak naka ngay waxee ak say man mi euh amna ñinga nga duñu dugg seen neegu mak yi ñu bokkal nday ak bay ca neeg ba buñ fa dugg loolu lépp ci yar la dafa am na nga xam loolu lañ leen yaré waaw te yoyu parce que yoyu aussi ci ci ci ni société la waaw yooyu yëpp ci ay yar la xamni xam ne nga xam vraiment mu ngoogu daal. waaw man maa ngi tudd Daali bu Yakka dëkk ba Daaru Mus ñëw fii ci Louga di liggéey waaw bi ma fi ñëwee nag xaw naa am temps tuuti temps bi ma fi ñëwee maa ngi njëkk woon ci commerce marché bi mais marché bi dafa xawoon a dëgër léegi bi mu dëgëree ci laa jëndee sama jakarta nekk ci xam nga rek Dóor waar mais avant tout lépp man maa ngi nu waa Louga TV ndax di leen remercier di wane ne lii boole nañu ci réew mi ndax lu mel ni dafay raar ndax di interview ay jeune ci talib ñi wax seen soxla dafa nek lu am solo day tax ñu xam ñun ñi boole nañu ci dund gi quoi ben instant té di rafet lu baax nak seen téway tay di xamal leen ñun talibé metti na metti go xam ci liñ ci dund ñun rek ñoko xam wa dafa am ni dafa fekk nak lo gis na rek gëm sa bop la gëm sa bop man bima nekk ci marché marché bi dëgër dama ko fa baye jënd sama jakarta bima ma jakarta jakarta la dawal ba passé permis am ci yalla def ma am sama auto waaw de kon xam na kon lépp looy liggéey boo ko gëmee rek di nga ci mën a génn waaw wàllu discipline bi nag moom loolu ci ci àdduna bi la ndax loolu nit mun nga defar sa doom sa biir kër mu génn mbedd bi wëlbati ko kon loolu tey lu koy defar du yomb maanaam nit nag du too du tee foo toll ngay ñaax sa waa kër ak leen xelal ndax leen wan ni que xale lu mu xam mag xam na lu ko ëpp fuuf mais duñu tàyyi di leen ñaax di leen xamal ni nag fii ñun la suñu réew la ñun ñoo xam moom jeune bu fi nekk jàpp boo jàppee ne yow yaa moom dëkk bi yaakaar naa yu caaxaan yu bëri doo ci dugg ndax man mii di wax ak yow bu ma jegee suñu dëkk di ñëw fii dara topp ma te bi fi nekkee ba tey yàlla ak may suturaal te maa ngi sant bu baax a baax a baax bu ñëpp meloon noonu nag yaakaar naa kon yi yëpp mun naa ñàkk te dafa am benn affaire bu am gars yi da dañoo xewal léegi lu xew ñu ne gouvernement gouvernement am na loo xam ne gouvernement mënu ci dara yow nit ki ci boppam Ya, ci sam sa bop ya ci taxawal sa bop man duma ma gouvernement di mënu ci dara mais gouvernement lim mën moy lim teg beut mais lim tegul beut gouvernement mënu ci dara te affaire bi mi ngi mi ci kër yi ci kër yi la ñëkke gouvernement mënul kër gu ne mu dugg fa di xol wa kër gi nuñ toogee ak lañuy dundé ak lañuy def wala ñuy def lool gouvernement mënu ko yow mi tok yaag sa njabot yaay sam sa njabot bo ko buñu génné ci mi xam ne taxawé ci mbedd mi waaw li ci dess muy walu jakarta bi ak auto yi walum transport lepp dal booy set yep ñep ñoo yam fiñu mëna séparer moy kenn ku ne muñal sa morom ñu yaatal xol ñu xam ñu ñep dañuy door waar ñu yërëmante tay jakarta mën nañoo def erreur mais bo sété erreur ba borom auto moko jité ndax bu dé jakarta rek yaakaar naa tuuti na tuutaay bo xam seen xajna stéli na dem dem yoonam mais tay da nga yor jakarta te sék borom auto borom auto li ñëk def moy ci digg tali bi lay nekk yow borom jakarta yow yaay moytu peut-être que nga moytu ba génn ci peut-être nga moytu leneen dal sa kaw sans dépendre ni nga koy dundee mais daal bu ñu yaataloon xol yi man yaakaar naa dëkk bi affaire bi daal xatul yaatal xol yi borom oto ñuy dimbalee xam ne borom jakarta yi seen i rakk la ak seen i jarbaat ak seen i doom ñoo yor jakarta borom jakarta yi xam ne tamit borom oto yi seen i kilifa ci ne ak seen mag ak seen nijaay ñuy sàmmante ci loolu di jàppalante tamit ci loolu buñ ko defee rek yaakaar naa ne sunu dëkk bi dinañ ci mën a génn 100 pour cent te bàyyi di wéeru nag naan damay xaar gouvernement damay xaar lii nit ndimbal na ca fekk loxol borom lolou mom yag na ko deg suñu mam yi diko wax ndimbal na ci fekk loxol borom ku gor gor dimbale la. ban ban message ñun ñi tassé ci talib ak ci mbedd mi bi kenn ku ki nga tassel nang ka def comme sa bop wala nga def ko comme sa grand frère wala nga def ko comme sa papa ji nga baye ci kër ga suñ ko défé yalla mëna saafara mais bu gis nit mu oyof mbubu ba nga xeeb ko wala ba nga yeb ko. wala bul gis nit mukk muy doxee naka su dul noonu wala nga gis nit xam nga yàlla dafa sàkk te yemalewut nit mun nga gis nit muy doxee comme waaye laago yi nga xeeb leen wala tamit nga bëgg bëgg comporter ak neen ñoo xam si ne que buñ taxawoon comme yow doole doo comporter ak ñoom kon maanaam nit toujours foo mën di nekk rek kenn ku ne da nga ko war a jox cëram ni nga respecté sa bopp noonu nga respecté ku ne buñ ko defee yaakaar naa daal affaire bi moom mën a saafaraw maa ngi tudd Daouda sant Kane la ci marché Louga man leen rek ci la insister quoi muy mbedd mi boo xoolee mbedd mi yaa xam ne mu salte mbuus yi ak kaasu acheté yi ak këru cigarette foo toll dëkk bi lu maire yi bale bale bale day tax dama bëggoon man man dama damaa gis ne dëkk bi dafa amul réew bu yaatu dem ba ci kër yi ba ci suñ parents yi sax réew na mi ngi ñoom fii da ngay toog benn paa ku mag bàyyi njaboot ak njaboot kër ga jël kaafi ataay sànni ko ci mbedd mi loolu réew na dong la tudd El Hadji Moussa Seck yaa ngi dégg

boo ko tànnalee ndey ci commencé biiru ndeyam nga ko commencé di ko yare inculqué ko ay ay ay ay ay ay habitudes yu baax yaa ngi dégg bu ko defee da ko mën a jàngal diine dana mën a am jom dana xam luy liggéey loolu mooy yar bi bu ko defee bu gàmmee bu bu bu màggee ci loolu loolu rek lay xam loolu rek lay xam te bàyyam jaar lay jaar tey am na ci benn solo bu am solo ndax ndey aussi am nañ ci part de responsabilité ndax euh, góor ñi dañuy xëy wuti ñu am bàyyi fa jigéen ñi te jigéen ñi en général ñu ci bari dañuy favoriser seen doom dañuy nëbbu seen sikk doom te duñ ko wax seen bàyyi mu saafara dëgg la dëgg ah léegi nag am na benn fléau bi ci nekk boo xam ni fléau bi li koy indi li koy indi mooy le somage c'est un grand fléau La Jakarta ils n'ont pas maîtrisé le le Jakarta maîtrisé mais ils n'ont pas de moins, ils sont obligés de gagner leur vie avec les Jakarta c'est la raison pour laquelle de nga beaucoup d'accidents mais il faut il va falloir les comprendre il faut réformer les Jakarta faire des formations en matière technique hein, pour éviter beaucoup d'accidents en matière de Jakarta Euh, asalaamaaleykum waaw xam naa ni question boobu ngeen posé moom ci wàllu ñàkk xajalante bi ci mbedd mi loolu dafa am ñaari tomb yu koy waral benn bu njëkk bi mooy xol mooy yaatu koo xam ni nii sa xol yaatuwul doo yaatu ca ndab ya ca kër ga doo yaatu ca basanga ca kër ga doo yaatu ca ëtt ba ca kër ga doo yaatu ca télé ba ca kër ga dootoo yaatu ci mbedd mi soo nekkee ci aptali koo ko bokkal da ngay defa ne xatal na la ndax dañ laa yarul ci xol bu yaatu gone su juddoo kim bokkal ndey ak baay dañ koo war a tàmmal ñoom ñaar ñu bokk ay mbubb tàmmal lu ndab xat xat ñu bokk ko kenn ku nekk lu mu jënd may ko sa moroom ku am bik abal bik sa moroom ku ami dàll sa moroom man koo sol loolu mooy toj seen xol ba mu yaatu ba bu ëllëgee buñ nekkee ci mbedd mi mën a bokk waaye gone yi su fekkente ni dañ leen a formé kenn ku nekk sax booy dem école sa bidongu bopp nga yor di ca naan bu sa moroom amul bidong du ca mën a naan kenn ku nekk ñu boo formé la ci kër ga ci sa bangu bopp saa bu lekk jotee kenn ku nekk xam nga foo dencoon sa kuddu kenn mënta jël yëfi jàmbur loola su dëgëree ba màgg suñ dikkee ci mbedd mi wala ñu dikk ci ëtt yi wala ci yeneeni barab duñ mën a xajoo dara moo tax li ci ëpp kenn ku ci nekk fu ñu la yóbbu nga vacances gan gu nekk fa mu dem vacances fa wala mu tukki fa wala mu yendu fa lam fay wone mooy la nekk ca seen kër kon xool dañ koy teel a tàggat ci bokk ñàkk mën a bokk googu nag toujours day feeñ ci mbedd mi beneen bi ci des mooy xam nga nit xelum kese la nit nag léeg-léeg day ànd ak xelam léeg-léeg du ànd ak xelam te du egg ci doon ab dof waaye nag nit mën naa bañ a ànd ak xelam ndax boo gisee léeg-léeg ki ki nga xamante ni nii sax bopp bi dafa jaxasoo ñu naan ay nagam daa naan siwul loola kon ay nagam naan siwul tekkiwul ni dafa dof waaye su fekkee ni nii sàmm gi dafa dem kenn ku nekk saw nag ñëw moom ñaari nag yi mu am ñëwagul jaxasoo ga koy jàpp moom la ñuy wax ay nagam daan siwul moo tax ñu koy jiiñ ku jaxasoo ñu koy jiiñ loolu di ko ko tuumaal waaye loolu dafa bari de ndax gone gi jubub ak examen te xamagul day jàllam déet bopp ba day jaxasoo jigéen jin may wujj bopp ba day jaxasoo góor gu fanaanoowul dépasse bopp ba day jaxasoo góor gu yor jabar ju pànk te te bu ko fekkee ci kër ga làmmiñ wa tàmbaliwaat bopp ba day jaxasoo ñooñu ñëpp seeni bopp dañuy jaxasoo ak ñeneen ak ñeneen ku yor bor te yoreel ko koo xamante ni nii dalaa nar a taxawu toroxal la sa bopp day jaxasoo dootoo fi nekk ñooñu ñëpp nag dañoo ñekk ci tali bi kon dawalkatu jakarta bi wala muy dawalkatu voiture bi wala muy dawalkatu oto bi daa war a xam ni ñu nekk ci dëkk ñu nekk ñi nga xamante ni nii ñoo nekk ci mbedd mi te yor yaramu neen wala ñu yeew leen ci kër dañoo feebar dofuñu waaye dof mooy koo xamante ni nii jàng nga la nga war a jàng xam nga la nga war a xam man nga la nga war a man waaye am na tomb bu la topp ci àddina bu rëbëjee sa bopp te yii ma wax yëpp bu ci nekk day rëbëjee bopp. pour loolu bañ a yee yee ah, ñi nekk ci mbedd nan nan la ñu war a comporter loolu bañ a yee fitna. léegi jafe-jafe dafa am ndax euh, bu fekkente ni nii euh, gone gi. Euh, tomb bi ñu waroon a dugal ci bopp maître am bi koy jàngale dugal ko ci gone gi mooy gone gi ñun ko kii mooy sa baay maître bi ñun ko kii sa dooma waaye su fekkente ni dañoo wutal gone gi ay droit voté ko ci assemblée ni ko bula la kenn xuri bu la kenn meccitu bu la kenn gestu waaw kooka yamale ko fam war a yem kooka moom gisatul doomam ak gone gu ami droit la gis ca biir classe ba maître ba it xam na ni loolu la gis moom itam mu jàpp ni sama maître beekat dañ koy fay par weer dimbaliwuma dimbaliwuma ci dara dañ koy fay ab salaire loolu ab droit la boo xamante ni daf ko devoir la bu ko war di droit bu ma am ci moom falak ñàkk teggin tàmbalee juddu ndax dajale nañ ñaar yoo xam ni kenn ku nekk armé nañ la woon la sa bopp muy ab maître akub élève te ñaar ñooñu dañoo waroon na dajale kee xam ni lii mu yore kat li yàlla wax ci alkuraan rek moo ca nekk la xad mooy dafa ni man bind naa doomu aadama mu mat waaye manquel naa ko ba mu gën a suufe lay suufe kon gone gi léegi tey mën naa nekk ahsanu taqwimin gën a taxaw taxawaay bi gën a rafet waaye mën naa nekk asfala saafiliina raw yées bàyyi ma mu ko maître ba di ko dawal loolu ca yar ba ak teggin ya ndax lépp nekkul ci livre yi lépp nekkul ci livre yi dafa am loo xam ne ci nit ki lay nekk mu war koo def ci nit ki waaye ginnaaw dox nañ seen diggante ba pare yàqu yàqu fokk mu bari fokk mu bari fokk mu bari gone gi su fekkente ni nii euh, kër ga mu nekk baayam talu ko ndax fit wa dem na moom dépasse la tal ndeyam it euh, xëy na topp na modernité bi loolu loolu it euh, yàqu-yàqu day am ñaareelu yàqu-yàqu ba mooy média yi xam nga dafa bari te média yi nga xamante ni nii tey ëmb na àddina bépp mooy mooy mooy informatique bi ginnaaw ëmb na àddina bépp loo daan dawale sa bëtu doom mën naa toog fii taal téléphone am gis ko gis la ca New York gis la ca Brésil gis la ca Chine loolu léegi loo ci man gone gi dañ ko daa tëj ni ko bul fekke ji bul xool bul dañ kumpa du xam gone gi du xam léegi xale bi xam 11 ans am 11 ans mën naa manipuler ordinateur wala téléphone am gis loo xamante ni bàyyam bi am juróom fukki at mus koo gis ci lu ñaaw mën nañ ko cee tàggat jàngal ko lu ñaaw loolu fu muy jaar ba man ko kon kay léegi moom problème dikk na moom man daal li ma ci gis ci teel mooy gone gi faw ñu musal ko alxuraan bala moo mus dara du dugal ko ci xol bi loola topp ko xëy na di ko détourné ndànk-ndànk ak daayira yu baax yii waxuma nag riirum daayira moo gis dem ca ndax daayira boo xamante ni nii nag nit ñu nekk ci seen bakkan dong lañu suba ba ngoon bokkul ak daayira boo xam ne boo ca nekkee da nga fa jële xam-xam wala nga jële fa yar wala nga jële fa ay teggin wala nga amee fa xarit bu baax loolu moo tax ñuy wax daayira waaye am riir rek bu ko kilifa santaane it pexey seytaane la waaye du dara du dara li ñu yabal mbooloo mooy loo xam ne sëñ Tuubaa nee na foo xam ne doo fa del dolli ko am xel doo fa dolli koo baax jikko ju rafet nee na foofa ëpp naa toog kon nag loolu loolu tax tax tam ci la bokk ci la bokk ak fonk jàkka waaye fileeg jigéen ñi respecté wuñu waajur yo respecté wuñu baay doom ju doom ju mal départ ay juddu doom ju mal départ ñu jox ko ci ordinateur yi ak téléphone yi dugal ko ci école bi mu gën a mal départ rek yàllaa ci def yàlla na yàlla dabak sutur